salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier ñu ñëw fii si wasaare waaw war fee décortique war fee commentaire fay fay bërëm fay bërëm Penda Waagaan moo si woote tey fii si stade eh, arène waaw si jour mercredi la nag lamb ji dinu a ñëpp duñ ko mën a jàppandoo mais lamb ju neex a ngi ñu ñu waajal waaw premier combat de ñu koy waaj a waaw R5 moo yor na ngemb lu ruus li Savando moo yor ngemb weex li arbitre soufflé na ñu ngi leewtoo R5 ngi ñëw euh, Savando sànni na benn gauche Savando sànni na benn gauche R5 remise na ko ñu ngi leewtoo oxo lamb ji nar naa neex de ñaari booy lañ de waaw waaw du yàgg waaw waaw booy teel sa tànk yi waaw waaw waaw booy yaa xeex gauche gauche booy xeex bi moo may gën a neex de waaw waaw daay la xay lalaaw non booy yi dañuy bëre de dañuy xeex dañuy bëre booy ñoom ñaar ñëpp seen taxawaay baax na. waaw waaw booy kenn du dóor di yóotu yow da lay sàcc de waaw waaw mais da leen jàngal booy yi xeex waay oxo booy sa bi ni nga neex na ma de. waaw waaw bu aju neex de waaw waaw noonu la de poids lourd da nga koy ñaar ñi daa mel ne bi lañ gën a mën su xeex bi. Savando Savando daw na songu dóor na coup Safando day song di dugal ku booy moytu loolu del xool boo xoolul buy lay sàcc doo ko yëg dee koy xool boo xool Safando ngi dox si koom ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo góos góos kenn ku ne aj sa gar di lewtoo góos góos kenn ku ne nga aj sa gar di lewtoo góos góos waaw Safando moo leen moo yor ngemb lu weex li ah R5 moo yor ngemb lu xonq li moo takk ñaari doppal tànk yi op op op mi day arrière rek booy dëggale sa bopp waaw waaw waaw dëggale sa bopp mën naa ne waaye de waaw R5 moo yor ngembul xong li Savando moo yor ngembul weex li Savando ngi dox si koom ngi déplacé rek mais R5 mi daa mel ne de waaw R5 repostel waaye mu jeex waaw waaw pourquoi pas gadaaral waaw waaw pourquoi pas dóoral non non r naa la man ngaa jël coup xoolal li ngay def xoolal li ngay def R5 kon tuuti nga maye paas R5 ah, kii bërekat la de loolu daanu ko de oh, loos wi loos wi waaw waaw boo dindiwul loolu da ngay dee de waaye R5 bi bërekat la de kii mbaru tànk la oh mbaru tànk la waaye da ngay loos wi loos wi loos wi waxoon naa la ko daa téye sa loos wa tëral ko Savando tànn R5 Savando tànn R5 Savando tànn R5 waxoon naa la ko da koy daan bëre xale oh mais mais Savando mi Savando mi naanaan la de kii daa mel ne oh, kott na entraîneur ba kott na entraîneur ba ay waay waay Pierre mbég na waay Pierre a waay